ci njub ci tabe ci oyofal bopp moom rek ku ci ku ci naafila ji ci yéen ñi moom rek mooy gàgganti Abdoulaye Wulu Rabbaani daan na ko bañ waaye mujj gi xam na ne kii kàng la waaw cheikh mii di naafila waxtu wu rungee wala mu juum moo koy gàgganti ba ci naafila ak ren gii waaw te dafay taxaw na benn bis ma ne ko sëriñ doo wut si di ci toog mu ne baal rek ma jéem naafile yëpp daf koo taxaw weeru koor wi lépp waaw ngoog nag waaw yàgg ci àddina gudd fan du benn kii gudd na fan ndax def na lu baax wax na lu baax jëmbat na fi mbaax li bàyyam ne woon rek ci la ne jàng ak jàngale ak def lu baax dugg ci jumaa ji dundal jumaa ji toppatoo nit ñi am orma keroog ziyaara kër yoro bi ñu ko njëkk a yëgal nag la ñuy jox dañoo bu sama bàyyi doon dund dana def lu ne man ma def lii waaw eh, loolu mbaax rek la wax yàlla mbaax rek la mbaax rek la rek la mbaax rek la eh, yal nañu ko yàlla fayal yaa rabbi yàlla yal nañu ko yàlla fayal nit ku baax la weeru koor yi passé keroog laylatul xadr Quraysh dafa ne ma dama bëgg nga gunge ma ñu dem kër Tafa Moustapha Niasse a fa ñu dem àgg mu àggee Moustapha présenté ko ne kii mooy ilimaani ratib ci dëkk bii moo war a doo borom dëkk bi itam présenté ko wax mooy kan ba pare jox ko kàddu mu ne ko man samay rakk yaa ngi nee toog ñii ci kër Maam Alaaji Abdoulaye Niass lañ bokk buñ teewee mbayaamut lu muy waxati na leen ba ñu wax ba pare ñoom ñooy ñaan tam ñu tas jataay bi ni la ko defee waaw baax la ñun xam nañ ko ñun nañ ko man de xam naa ko im feebaree feebaram bi eh, ana imaam waaw da mu ngoog dama koo dégg dem dem clinique jaaraama ak ñu ne ma waaj ndaw si ne ma départ nañ sànq yóbbu ko Dakar ma téléphone jot imaam moo amee téléphone bi ci ëllëg sa imaam ne ko Pape Bachirou Niass téléphone na la mu ne ko ool ma ko mënut a wax sax mu ne ko ool ma ko mu ne ma damaa bëgg a dégg sa baat wallaahi damaa bëgg a dégg sa baat waaw baax la de ku baax la de kër gii de ñun pour ñun kër gii kër ak kër lu ne la lu ne la bàyyi ma daf ñu daan wax nañu suba lu ngeen bëgg a añee wala lu ngeen bëgg a ndékkee mbooloom gone dégg nga yow ne woo fi di wut alal doo commercant doo dara te bëgg gone yi xam dara rek tax nga naan leen suba lu ngeen bëgg a añee waaw wala lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg a ndékkee wala ñi naan ceebu yàpp lañ bëgg ñi naan nangam lañ bëgg boobu lekk yow mbagut daf koy def daf koy nañ ci kër gii nag daf daan wax ne oustaz Baram Diop ci taalibeem yu mag yi la bokk waaw kër ñu bari jëlee nañ fi xam-xam de waaw ñu baree bari ci dëkk bii jëlee nañ xam-xam ci kër gi li kër gi jur ci borom yi xam-xam yëpp li borom kër gi xamoon ay lu ci bëri kii dem nii tey xam na ko te dund na ko itam jërëjëf jërëjëf alhamdulilah sant la sant yàlla la ak fii ak ci bitim hmm. euh, laaj ban jikkoo ma éemut waaw kon benn yéema ma yëpp yéemoon na ma hmm. dëgg yàlla nit ku baax la woon laa hmm. mbaax gu amut pegg daan jóge lii bi ñëw vacances Kaahira pour seet si ñu ñee lam fa jëlee yëpp dafay bala faa dem balaa ñibbi lépp la fay dundale boobu ñun la yàlla xam doy na am na ci ñun sax ñoo xam ne amuñ bourse te boobu moom lii bi la nekk te booba lii bi dafa bëri le waaye dafa daan école di tëj rek mu jël avion ñëw lii bi ñëw ñëw Xaahira fekk ñu fa mu ñëwee dëkk ak ñun ci benn kër te xëy di joxe dépasse waaw dara yéema di wut ma ci moom dara man dend naa moom ba sonn ci jumaa ji ci wasifa dend naa ak moom ba sonn ku ku ku indi ajuma kan laati sax ci yéen Yaxya waxtu mu nekk bu ñëwee maa ko wax ne ko nga jël utal ko nga naa ne ko sëñ bi wéerul waaw mu toog Yaxya moom bu paree moo koy dimbalee mu jóg mu génne ko mu ñibbi te ajuma ju jot danaa ko gis ci ba mu koy man wasifa wu jot mu ngi mu ngi toog waaw